bu tabaski jubsee njàqare ak coono gane ci boroom kër yi toogaay daal di jeex ci askan wi diggante jëndkat ak jaaykat yi jamono ji nemmeeku nañ ratax waaye yenn saay mu féewaloo itam accessoire tissu ndugg grillage bi war a lakk xar yi mu ngi fees dell ci dëkk bi fii ci rond-point Sipres jaaykatu xar yi ñu fa fekk ñu ngi ñuy xamal ni xar yi tuuru nañ fi waaye ndànk rek la ñuy doxee. waaw xar yi nag moom jaragul quoi franchement d'ailleurs mu fekkonte ne jar xar yëpp. ah au moins kon euh, moitié bi dem na. lii problème bi mooy que nga am quatre-vingt mille bëgg nag am xar boo xam ne deux cent mille la war a jàll. soxna Ndeye Lo di yëngu ci njaayum grillage micro-ondes four barbecue ak li ni mel mi ngi ñuy wax ni tabaski yi weesu wute nag bu ren bi lool. heure bi daana fekk sun grillage yéeg yëpp lu bari dem ci ay na jàmbaar fuur yi jàmbaar yi ba leen di jaay nga barbecue yeeg ak fuur yi yëpp dañ koy jaay waaye ren daal moom. affaire yi avancé gul dara wax dëgg yàlla. ca marché Yoff soble ak pombiteer manquéwul comme ni ñu ko daan faral di nemmeekoo su waajtaay tabaski jubsee waaye bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Seck pombiteer moo xaw a yokku njëg tuuti. soble bi moom mu ngi fam ne woon ba léegi moom yokkuwul pombiteer bi moom moo xaw a yokku tuuti. pombiteer bi xam naa dafa xaw a manqué rek. xëy moo tax ñu xaw ko yokk. ba tey si biir marché Yoff kuy waajal tabaski doo fàtte benn yoon saf-safal bi war a gunge ndawal bi faama ak naataangoom bii di soxna nee nañ ndugg yi lépp yomb na te jafewul benn yoon. njaay mi nag seer na seerul ndax li ñuy jëndee duñ jëndee prix bii rek prix bu normal la ñuy ñëw rek jaay ko sunu clients yi. ñun moom dañuy jaay lu baax lu fere lu macha allah koo xam ne moom boo ko jëndee rek boo ko tegee sa kër rek nga xam ne ndugg nga ndugg nga teg te njëg gi du musa yoo mu mel ni Mame silla Sylla di client ñu fekk ko muy ndugg mi ngi feelu yile jaaykat si yombaayu légumes yi. prix bi moom abordable na parce que moom période tabaski moom ku ne xam ne nañu fa ñu koy jëndee fa la ñu koy fa la ñu koy seerale moo tax ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom dañuy jëndaat ñëw di détailler ñoom it foog il faut que tamit dañuy yokkaat mais moom pour l'instant moom macha allah prix bi baaxagul na. marché Dior diggante sac dàll. takkaay tissu wanteer bi mi ngi dundal marché wi ak ay xumbaay gannaaw bu ñu lakkee yàpp ba noppi jigéen ñi faw ñu wane seen bopp moo waral jaaykat yi génne lépp lu leen di taaral te daanaka yombal nañ prix yëpp. man dama ñëwoon di jëndal sama doom yi ay dàll. waa prix moom franchement abordable na c'est très abordable moom budget boo yore rek di nga am li nga bëggee. non bagage seerul sax bagage yi de seer bagage rafet na macha allah te seerul. non ñun dañoo wante rek ñun suñu jaay xam nga seerul waaw ah, li mooy loolu. ci jàngat bi ñu def jaaykat yëpp mànkoo nañ xamal ñu ni tabaski ren bi ute naag ya weesu. mais client yi nag normal mais yaakaar nañu dinañ dugg bu baax incha allah. wàllu ndimbal ñu war am xaj na am nañ ci gi mais ndimbal dafa des quoi dafa des. non wanteer ba sonn da ngay yuuxu ba sonn rek mais dara amu fi kenn ñëwul kenn jëndul. client yi ñoom ñu ngi ñëw par benn benn rek nag. mais comme ni clients yi daan ñëwee ak préparation tabaski nu mu daan demee ak ren nu mu demee moom du ñu benn. jafe-jafe mooy amuñu ndox ren amuñu repas xaw ma lan la quoi waaw. tabaski yu daayu moom wute nag bu ren bi tabaski paase yi moo daax bii moom. tabaski yi nag daa mel ni bu daaw bi nag moo ëppagun lii daal moom lañ ci xaw a am yaakaar ne moo xaw a taneegun daal. daanaka lépp a ngi ci marché bi ngir tabaski bu ren bi jaar yoon.